aja mbokk yi ñu ngi am mbégte di amaat kontaan di siyaare mbokku internet yi rawatina mbokku sénégal 5 point com yéen ñu ñuy seetaan partout dans le kon nu koy waxee rek kii nag yaakaar naa keroog samedi moom lañ leen topp leen arène jagaan mu nekk combat boo xamante ni combat bu marqué waat la si carrière am parce que gis nañ ko ay jamono tolof tolof nag mën ta ñàkk si mbër mais lu may wax rek mbër mu dul décoration bis dina ñëw nga am ndam yàlla xool samedi du xool ba tax na wax ji bëri na ci côté mais gis nga ba mu daane tamit wax na ko nee na lépp dégg na ko ba muy jël combat bi pare wu doon parce que dafa nekkoon ci ay campagne ñi naan ko nangam ak nangam mais mbër am na loo xam ne ba xasee nekk chef wala nga bëgg ko yaakaar naa fu ñu la yee rek ne la làmb ngi nii war ngaa mën a dem gannaaw loolu dama koy bàyyi mu nuyoo mbokk internet ñu waxtaan moom si làmb ji wàccaay beeg yooyu ak fan la jéemaat parce que fekk nañ ko ci salle bi muy entraîné mu mel ni kuy préparé waat sax beneen combat xanaa lu may wax rek mbër moom boo xëyee comme nu gars def rek takk seen cravate yor seen saak taal seen oto yaakaar naa entraînement mbër mbër maa lay siyaar waaw asalaamaaleykum euh, rakk jàmbur maa ngi lay nuyu di nuyu waa àddina yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu ñi ni seedaan ji tamit di di teewlu di rafetlu tamit sa teew fii ndax yow sama raq nga ragal féete day xañ a wërsëg ndax ñoo dëkk kenn dàqu laa bëre ndax loolu wax ci làmb rek am na loo bàyyi xam nga lu si ne waaw. loolu am na solo avant ñu ñëw si biir combat bi wàccaa bi yàgg jegaan mën nga ñu see del si waatal combat bi soit bi wala da nga jékki-jékki ñëw wala. waaw noo jigaan si biir campagne bi nañ ma ko doon waxee bi ma ñëwee nit koo gis day am ay kilifa day am ay mbokk mu ñëw ne alaaji salle musculation bii nga xam ne moo nekk buun nekkoon mbedd Fass ñu tuuxal ko hélas moom ko ñu indi ko fii en face école buun mu ñëw ne alaaji am na benn combat de bu ñu may wax waaye nag maa ngi jëm ci campagne mi ne ma jël ko te boo nemee ci campagne bi na nga bëri lu bul bëri looy yéeg si oto yi nangay bëri li ngay daw ndax tamit boo dee daw rek di nga am benn ne ak cardio boo xam naa ne tamit boo liggéeyaatee tuuti mun nga cee génn hélas moo ma xelal loolu maanaam daw bi da ngay nekk ci gannaaw oto dafa na ma daal l'essentiel oto bi nga xam ne mooy autorité bi nekk yow wàccal foofu nga topp ko di daw bu taxawee ngay cooki-cooki bu dawee nga ànd ak moom daw bu ko defee di nga mën a liggéeyaale li nga bëgg a liggéey waaye comme ça boo bëggee toog ci oto yi ba pare campagne bi jeex combat bi des ay 15 jours doo ci mën a génnee te xas nga dugg ci campagne ba pare hélas na ma defal loolu boo ñëwee li ci nekk man ak moom ñoo ko liggéeyee combat bi kontaan gu ma ci man lépp saal saal bi laa ma ci benn yoon billahi lépp fii laa ko liggéey alaaji moom ma ko doon liggéey damaa liggéey cardio boo xam ne waa ji bu taxawoon sax xeex bi ni bëre bi voilà xeex bi laa ni bëre bi comme comme rek alaaji lawbe wala ñu waaye man yàlla daf ma suturaal aw ma noon man xawma la ku ma bëgg ak ku ma bëggul a yéene naa ñëpp jàmm loolu na ma yàlla suturaale sama même sama yaay tamit di sonn ci man moo tax it mi ne ma jël ko te di nga ci am ndam moo tax man làmb du ma ci dépassé naa foo xam ne ci làmb goney marin sax bu ma fay entraîné dama leen di wax ne yëgalu ma leen combat ngénte laa leen yëgal te pourtant dama dama dama damaa ngénte samedi ñëw bëree samedi daan nga xam ne tamit làmb tey jii lépp lu yàlla dogal rek si doomu aadama loolu day am te bis bi yàlla moo waxoon ne Mbaye Gueye dina am ndam te yàlla moo ma may ndam du kenn nag moo ma may ndam yàlla suñu borom mi ma doon xañ yàlla boobu moo jël ndam li may ma ko waaye bu doonoon ci préparation combat dëgg combat bi pare wu ma ko 100 pour cent waaye tey jii bu préparé woon moo mi xam na li may wax man ak moom tolloon naa benn poids boo xam ne amoon nañu fii 100 ay amoon naa 127 kilos waaye campagne bi moo lépp coono bi moo ko yóbbu. jigaan xamoon nga ko wala xamoon làmb nga ko xamoon ni rek wala mës nga ko siifur. jigaan de barki Seydina Mohamed bu ma waxee rek te yàlla tax barki alxuraan maa ngi koy doogu gis jour bi ñuy jour si ak jour bi ñuy jàkkaarloo ma gis ko si YouTube bi barki Nabil Moustapha fa laa ko gisee. waaye après dama xool benn séquence bu mu entraîné ma xam ne kii gënuma pare. mu dis na nag wax dëgg yàlla dis na ndax taf naa ko plaqué boo xam ne ku ma ko mës a def daanu nga waaye taf naa ko mu résidé ko waaye nag comme maa ko mag ci làmb làmb bi ma ñëwee tuusuma génnuma tuusuma tu feccuma génnuma defuma dara damaa ñëw taxaw moo ma koy liir ma koy liir lamb ji nag sonn na si trop gis naa ko di ko encouragé di ko nag sport noonu la waaye dama ko mag ci làmb waaw dama dama man maa ko mag ci làmb moo tax nag léegi ma bàyyi ko bis bi muy fecc def yëpp ñëw fekk ma fee ñëw ruube ma mën a ko sa paa yi nga àndal nii dañ lay sotti ndox mu sedd mi rek lii yëpp ay ndox la dañ lay sotti rek amoo ñaan la pare mooy tooñante ak moom noonu waaye ci biir combat bi laa xamee bu mu duggee ci biir enceinte bi laa xam ne jigaan bu taxawee mun naa ko dóor daanu taxawee mën nga ko dóor mu daanu billaay wër gi daal te loolu laa décidé woon an an liggéey naa ko élage ba nga xam ne bu taxawoon ma dóor daanu avant avant ñuy ñëw foofu comme nu nga ko waxee ñu gis Mbaye Guèye junior mu yegg si tuusul deful dara loolu tegtal la woon wala da nga ne comme que moo nekk moo gën bi rek non xam nga làmb booy ñëw rek dafa am ay tegtak ay tetal ay tigtak yooyu def si làmb ñëw naa daal xool naa ma ne làmb di ju xam ne booy ñëw di nekk topp ambiance bi man ku xam ne Mbaye Gueye day ñëw fecc tuus bëre daw a cent mètres yëngal public bi man daal kii naa ko def làmbu làmb boo xam ne làmbu teg-teg la rek xool ko bàyyi ko bis bi ma bàyyi ko bis bi yenn ko ko bu duggee ba ci biir géew bi nag ma gën koo bëgg bis bi nag ma gën ko ko bëgg fop tamit li ma ko daanee nii comme ça ñu bëri dañoo comprendre le jigaan dama doon xeex mu départ di ma song si ma dajeeg moom bi ma ko jàppee ma rocc sama loxo droite bu dóor dóoraat ma gis ko mu nooyiwaat daal di ñëw daw pincewaat ma ma xool ko xam ne kii daf may jéem a zongale mhm. léegi nag si ñëw ma bàyyi ba mu yëkkati nag ma sëf ko sama poids bi ak sama poids dootu dootu ko attan wax dëgg yàlla dootu ko attan. Ah, ma sëf ko ko nag. Mhm. léegi nag bàyyi ko nag bi muy teg nag fekk euh, zone góos bi lemu na ba pare mhm. ma ànd ak moom dëdd ci. est-ce que tamit ñu gis la ci biir bëri nga mel ni ko doon jéem a fàdd ak yooyu est da non gars yi nag wax dëgg yàlla pàddu boobu sama foor la ki si daan entraînement saa kees te sama wet góos bi su ma ko jàppee nii ba téye la nii. ñu naan fàdd bi da doon fàdd pour jeexal làmb jeeg yu demee noonu. jeexal làmb làmb <laughs> làmb samedi bi xalaatuma si sa daanu. billaay war ki daay xalaatuma ko ak lu munti woon a xew. maxinil jaraloon na ma ko waaye daanu xalaatuma ko non non pàddu boobu mun naa ko bon léegi yeneen yeneen mbër yaa ngi suñu kanam képp ku ma ko di dawal dawal dawal jël tànk góos bi. waaw loolu loolu maa leen ko yaatal ku ma patate rek jàppal sama tànk gauche bi boo ko jàppee dinañ dinañ xam ne ndax damay jeexal wala du ma ko jeexal boobaa làmb ji day jeex incha allah ba jigaan ñu daw dëkk la micro man bokk naa ñu njëkk a ñëw si biir géew bi mais nga am mbégte bay jooy naan lépp sama yaay la wala di wax ay wax yoo xamante ni daal xaw naa daw yaram trop alaaji jamono boobu lu nga doon sentir dafa xaw a yéeme wala nu mu demee noonu non boobu sama xel moo sori làmb ji dama ci dégg ay wax yoo xam ne euh, làmb waxul dëgg rek tey bu ma demee ba bi ma demee ba am yàlla suturaal ma ma takk sama jabar bu yàgg ba bii doon sama bii doon sama ñetteelu doom ma ñëw di ko ngénte mbay gay parewul làmb ji amul lu mu ngéntee xaalisu làmb ji la jël ngénte ko bu ma demee bay wër bay bay bay wér ngénte sama xaalisu làmb may liggéey ñaari liggéey di liggéey ci mairie Kër Massar di liggéey présidence bi nga xam ne sniper moo fa nekk sniper responsabilité sécurité APR may liggéey foofu si may liggéey si présidence may liggéey si ànd ak ñoom sniper ak ñoom grand seex di liggéey foofu may liggéey présidence bu ma demee ba amul lu ma ngéntee ma war a mun a bàyyi te alaaji mu ngi nii saal bi suñu saal la su ma amee damay fay bu ma amul nag damay fay saal bi saal bi dama siy jàpp damay damay ñëw am fay suba awma ma ñëw entraîné kon tey jii bu ma yorul ñaata at ma toog bëréew ma ñetti at bëréew ma kon fan laa doon dundee man ak sama njaboot ak fees ak sama waajur nañu nañu bàyyi wax ju ñaaw ju ñuy teg si kaw doomu aadama yàlla moo yor wërsëg te doom bu ñëw dafa indaale ajoon naa ngénte li campagne bi jàll na sama sama man sama jabar liggéeykat la mi doon soxna liggéeykat la téye naa ko depuis boobu ba léegi trois mois mu tëj place am liggéeyul léegi ma libéré ko si ngénte li mu dem liggéeyi gisoo damaa ngénte samedi dimanche lundi mu dem liggéey jour jour combat bi sax dama ko waxoon mu dem liggéey mi ne ma non non loolu rafetul mu doog a naa droit man sama doom la ngénte xaalisu laam yow man li ma def si ngénte li la man ma ko fay xanaa man xanaa dugg na un million trois cent cinquante mille ngénte li lamb gi duggul tamit lamb ji amuma loolu lamb ji bëgg a génn si bis bi rek moo tax ma def loolu te ngénte li yóbbu na un million trois cent cinquante mille wala fa laa ko jële nit ñi nag dañuy bàyyi di lii man awma noonu ak kenn waaye wax ju ñaaw baaxul moo tax tey jii ma waxoon ne làmb ji même bu may lii dama siy teg sama bakkan bi ndax tamit li ma li ma si dégg moo tax. ma bàyyi si gannaaw. léegi nag tamit. sam léegi comme la wax loolu am na solo foofu jeex na Mbaye Gueye day continuer di maye sens wala Mbaye Gueye day dabi awaat ay moromam wala fan la jéem. man daal li ma waxoon bërki démb rek laa waxaat guy rërëg laa tegoon sama bër ku daan ak ku daanu soxla naa la comme te nag rërëg moo daan soxla naa rërëg di laaj ay ñoom Balla Gaye ak ñooñu nga ngay laaj ah, rërëg yow yow yow rërëg dépassé gul foofu de àggagul si sax ñoom Balla Gaye Balla dépassé na la tamit de wala déedéet non waaye rërëg fii na ko Pape dañ koo ko si bi Iba Mar Diop koo ma la wax ñoo deful li ñu war a def làmb moo warul am farfarloo Pape Yacine dafa daan rërëg jël bu leer nañ rërëg nekkul daanaa lu bëri kan la de xëy na nag dëgg la am na doole nii am na fugu toll toll toll na si ay guddeem waaye du daan na bëree non non man bëre rërëg ubbul sa bët barki Nabil Moussa bëre rërëg toll ma fii Ahmed Dem moo dàq bëre caaray géej Ahmed Dem te man nag moom bëri nañ trois fois mbapat ma daan ko kon man ay waxi rërëg waxuma ko Ameth dem moo dàq bëre caare géej rërëg du ndaanaanu bërëkat xëy na yàlla dafa dogal mu nekk si benn guddi boo xam ne ay biddéewam ñëw rek waaye rërëg ñaan daana ko fi daanu jël jël bi yéem nit ñi amagul maama warul fi Mamadou Ndiaye ndoom ma maama Mamadou Ndiaye daan ko kon tamit lambo di rek avec frappe bi la ñu wax gis nga bañ commencé ba léegi mu ngi rajaxe rek di teg ay ñoom bébé Saloum ak ñoom Jordan ak ñoom Elton ak ñëpp day ramasse di yeeg ba si bërkit ba si démb ak Ndiaye guy gi mujj mujj déggoo ma la dama ne la yàlla dafa dogal biddéew moo génn rek waaye tey jii mbër mu toll ci ay guddi kuy bëre ci làmb ji Sénégal bala Gaye la dàq bëre làmb Sénégal ba mu daj Balla Gaye sa wax loolu la ak loolu moo am ndax man bëre naag Lac de Guiers numéro 2 mbapat daan ko bëre naag Modou Lo daan ko bëre naag Papi Général daan ko Alaaji moom daan ko yaa ngi dégg Mamadou Ndiaye bëre naag moom daan ko kon kay man xam naa ne Balla Gaye moo dàq bëri ci làmb ndax man ak moom xamante nañ bu baax a baax léegi bu dul rëg yow yan adversaire nga gis ne war ngaa mën a ñoom man daal rëg laa teg sama bët ba nag keroog làmb lu may boole rek ma jël waaye actuellement nii su ma amoon lu ma gën gënoon suba suba ñu jox ma rërëg. jox la rërëg léegi boo amul rërëg plan A ba boo essayé yan booy nga gis ne wa pare nga pour may leen chance. waaw bu rërëg amul ku taxaw rek te nga xam ne làmb boole nañu rek pare naa pour ñëw ñëw bëre ak yow waaw. parcelle doo fa desaat ba tey wala bu fa avance ñëwaatee rek. parcelle parcelle dugg naa fa ñaari yoon. Mm-hmm. doo ko seet foofu bu léegi wala ngay génn. ba ba tey lu ñëw baax na. waaw man bàyyi ma parcelle ak kenn de man xam lu waa buun gii laa fi bàyyi buun ikiri buun gii nga xam ne buun gii ñoo dëkk ñoom laa fi bàyyi buun dafa bëgg naa buun gi nga xam ne ñun ñoo nekkandoo buun fii ñun mbëri ñun ñëpp ñu booloo doon benn bu kenn di bëre ñun ñëpp ñu mobiliser dem te xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ba pare salle musculation bi nga xam ne dañ ko indi fii buun mbëri yëpp ñëw di fi entraîner loolu mooy gën a tax relation bi di am jàmm ji am ñiy kaf di ree man seen mag laa bu ñu ñëwee maa leen jiit si làmb ndax boo yëpp ñëw ñu mobiliser di daje salle bi musculation suba si ñuy matinaalu bu ko defee science yu bëri dinañ ko génnee te bu ëllëgee làmb kenn xamul kuy jariñ sa morom tey mun naa xeeb booy bi suba suba moom mu génn ñëw teral ma ndax Modou Lo noonu na demee woon parcelle kenn yaakaarul woon ne mooy génn tey ji képp ku dundoo loolu moom lu ñaaw tey doo lekk ci wërsëgam Xaadim Gajaga moo fa doonoon champion bi kon rek mbëru buun yëpp nañ ñëw ñuy daje salle bi musculation bi salle mbër day dem salle képp ku wax ne mbër du musculation lay wax li la neex physique kase kase kase mënu laa may doole bi nga bëgg musculation moo lay may doole gi nga bëgg ba pare boole ko contact ak physique physique bu wóor. te démb démb am ku ne ma Mbaye Guèye Junior Pape Ndoye mu jógee ci taqe jógee waat si nga xamante ni moo di kii nu mu tuddati waaye kan la mujj a daan avant mu daan taqe sax Abu Ndiasse am ku ne ma Mbaye Guèye Junior Pape Ndoye loolu naa ko démb riima bi daw na stade yaatu na ndax pare nga pour laaleeg moom. wax lamb waa Fass nañ bëgg indiwaat rek Mbaye Guèye Junior c'est le retour de fas nañ bëgg a def man nag bàyyi ma fi kenn du ma fi tëkku kenn nag ñépp laay bëreel. mom moom bu la indilee la jamee kee CC na pour laale. man daal làmb laa fi nekkal képp koo xam ne staff bi d'accord nañ pour ma bëree moom te làmb fi ñu nekk nii dañuy liggéey du ma bëreeg diw du ma bëreeg diw du ma ko wax waa buun gii laa fi ba. kon double moteur mu fi moom it ba tey comme ça saar gi day. double moteur rek ñëpp a ci yem ku ñëw. daanaka doole ji daa bëri ku ñëw non man fii su ma amee ku may moytu si làmb ma bàyyi làmb. double doole ji daa bëri. waa waa loolu moom lu ñëwagul mënoo koo jee wax. waaye tey jii bis mu demoon ba loolu taxaw dina bëreeg du bëri loolu du bëri ci man man daal waa buun gi laa fi bàyyi. dama ne man daal waa buun gii laa fi bàyyi sama lambo waa buun laa fi bàyyi. ñooñu ñëpp ku ñu seet si pare nga pour bëri ak ñoom. laay bëreel képp ko xam ne da koo buun damay bëre yow. am na solo looy tàggatoo. sant ñëpp. di gërëm waa àddina di gërëm sama supporters yi. di leen ma saw coono. di leen wax ne ñi ma yëgalul combat bi. si man la. Euh, am naa yaakaar ne dinañ def beneen mobilisation xam ne bii ba bu may ñëwaat bu dee vingt cars sax dinañ ko indi ndax ñu bëri mere nañ ma li tax waxuma leen combat bi combat bi dama doon ñëw pour wane sama bopp confirmer ne bokk naa ci làmb ba léegi tamit di sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo nit ñi ñëpp nag pour ñu ñëw mobiliser ñu bokk ndey bokk baay def buun gi ñu mbëri yi nekk fii buun yëpp jàpp ba yëmbal ay maliga ñun ñëpp nañ ñëw ñu entraîné bokk fenn fu ñu nekk salle bi ngand na am na espace mun nañ ci dóor samay gaan nag ñoo fi nekk ki nga xam ne mooy gis nga ko complexe la day gën moom moom complexe la bëggul média ñoo fi nekk di liggéey te xam naa ne tamit euh, combat bi nii ma ko jëlee woon la waaye taxaw naa position boo xam ne bu ma liggéeyaatee une semaine bu ñu dajawaatee stade euh, bi dimanche di nga xam ne mbéy am na changement ci diggante bi yow nag sant naa la bu baax gërëm naa la di sant waa buun gi yëpp di sant waa Kër Massar di wax ñëpp nañ ñëw jàpp suñu salle musculation bi ñu àndandoo liggéey salle bi jëm kanam am na solo jëwrin yaakaar naa yi lañ fi ñëwaloon tey pour taaxir leen ko dañuy def saay bu mbër bëree ba pare rek ci suba gi wala laan demi bi dañuy dem jël ko waxtaan ak moom fas yéene xool yan adversaire ñoo nekkaat ci kanam mais am na si adversaire yoo xam ne yaakaar naa ñu ngi si làmb ji ay xale lañ tamit mais donte moom moom nañ jéggoog moom wala combat ba yéenu maanaa ko nu ko waxee ay magam ñu nga xamante ni war nañ kaa mën a may loxo war nañ kaa mën a mayaat loxo mu kon di barki démb ak Ndiaye mook jagaan keroog samedi yaakaar naa loolu rek war naa wanewaat leneen daal pour gars yi ko koo bàyyi xel di leen jaajëfal di leen joxaar ak beneen champion incha allah